ñu ngi nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jeg a samp bu mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fii ay yoolu yoon paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare a daw si yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ñu ngi nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk a samp bu mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fii ay yool yoon paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa boo xam ne yonent bi bii la jëkk a samp bu mu jógee mu Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu boo xam ne yonent bi bii la jeg a samp bu mu jógee mun Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yoon paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu boo xam ne yonent bii la jëkk samp mu jógee Medinatul Munawwara yàlla na yàlla indi la fi ay yoolu yoon paa bi tey la am 40 jours si suuf si yal na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu si càkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk samp mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ngi nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jeg a samp bu mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana si yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi mu sallam ñu ngi nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk samp bu mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu boo xam ne yonent bii la jëkk a mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana si yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ngi nii si càkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk samp bu mu jógee Medinatul mun naa ko wax yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana si yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne yonent bii la jëkk a samp mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana si yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sa alayhi wa sallam ñu ngi nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jeg a samp mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi fi ay yoolu yoon paa bi tey la am 40 jours si suuf si yal na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nii si càkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk a samp bu mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la am 40 jours si suuf si yal na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk a samp mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fii yoon paa tey la am 40 jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla sunu borom bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu boo xam ne yonent bii la jëkk samp bu mu jógee Medinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yool paa bi tey la am si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu nii si jàkk boo xam ne yonent bi bii la jëkk a samp bu mu jógee Madinatul Munawwara yàlla nga yàlla indi la fi ay yoolu yoon paa bi tey la am jours si suuf si yàlla na ko yàlla xare ajana firdaws yàlla mun na ko yàlla ko sunu borom def bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa